waaw ñu ngi sant ñu ngi sant ñu ngi fi fekk te ñu ñëw visiter si stade bi waaye ci turi madame le ministre de la formation professionnelle de l' apprentissage et de l' insertion damay njëkkee sant gi may sant si équipe ministère bi fi nekk nga xam ne ñoom ñoo organiser lii comité d' bi taaral ko def fi lépp loo xam ne képp koo xam ne formation professionnelle et technique da la intéressé soo ñëwee fii information bi nga bëgg di ko fi mën a am donc tey nekkoon bés bu mag ñu jagleel ko ministère de la formation professionnelle de l' apprentissage de l' insertion ñu tàmbalee ko si dajek waxtaan bi nga xam ne ki ko doon am amal mooy euh, coordonnatrice projet 1000 femmes wax si mbirum autonomisation de la femme mooy nooy fexe ba jigéenu Sénégal mën a wéyal boppam ci jëriñ boppam jëriñ askan bi taxawu njabootam ci li nga xam ne état Sénégal def na ko en place ngir accompagner leen te pacc bi ñu si intéressé nekk ci loxo ministère de la formation professionnelle te moom mu koy doxal. donc looloo nekkoon solo bi nga xam ne moom mooy événement buñ tàmbalee bés bi ginnaaw loolu nag ñëw nañ fi fekk nañ fi lépp li nga xam ne ministère mu koy doxal te ndaw bu bëggee yëngu ci formation soo ñëwee fii information yi nga soxla di nga ko fi fekk dinañ la teg ci yool boo xam ne soo bëggee tàmbali jàng dinañ la teg si yoon bi nga xam ne di nga mën a tàmbali jàng boo xam ne au de six mois mën nga am sa diplôme soo bëggee continuer. sam njàng bu àgg ci doctorat te jaaroo école tamit dinañ leen teg boo xam ne bii di nga a àgg fa bëgg àgg ci sa jàng te lu si xiiwal bi mooy jàng boo bëgg jàng ci formation professionnelle ministère bi si conduite madame Mariama Sarr ministre de la formation professionnelle ak ci ndigalu président de la république am na ay yoo xam ne taxawal nañ ko fi lu mel ni 3FPT formation boo bëgg def ba licence 3 mën nañ la jël en charge fayal la si téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki ba nga àgg fa nga bëgg a egg si sa njàng ba amal sa bopp liggéey wala boo nga tàmbali sa liggéeyu bopp te loolu tamit direction bu koy taxawu ci ministère bi mu ngi fi teew muy direction de l'insertion